garab gi jëmbat nañ ko tey de mm. waaye du meññ tey ku yaakaar tey tey nga witti doo witti waaye condition yi ñu ko jëmbatee fexe ba jël suuf soo xam ne ànd na ak moom def ko ci jiital ko def ci liñ ci war a def te bis bu ne ñu jaar arrosé ko moo tax ñu am yaqin ni bu soobee yàlla fii léeg diir dinañ ñëw witti kon réew it noonu lañ koy tabaxee fondamentaux yi moo am solo mm. fond fondamentaux yi ñu fi fekk moo baaxuloon loolu il faut ñu noddanti ko te ci fan yi di ñëw diñ cee waxaat lu bëré bëri bëri Sénégalais inshallah fondamentaux yi nak suñ ko nottatee ba paré ci lay mëna nga mëna commencer di teg ay brique yu tabax gratte-ciel lu ko may rek du soti kon di continuer wo ndaw ñi ay une mobilisation forte et exceptionnelle xamni lañuy jëmbat bu soobee yalla man ma lañ ko wax avec assurance nak ndax tay tol tol na fo xam mën na ne tiim mbiri càmbar naa ko liggéey naa si ñetti weer xam naa fi ñu jëm ma wax leen ko ak assurance comme ni ma ko mës a waxee ci lépp lu may def ma jox leen garantie ni fañ leen ne woon fa la ñu jëm incha allah gannaaw yàlla amul lenn luy dund ci àdduna lu ko mën a te kon la ca des ñoom ñu gën a takku ànd ak patience def bloc autour de ñi ñu jiital te wóoru leen fu ñu leen joxoñ ñu ànd ceeg ñun bu boobaa Nous très très bientôt les premiers résultats les premiers fruits de cet engagement à